combat bu neex di combat espoir dox ci diggante ay xale Saaka Ba ak. Boy Saloum ak Boy Saloum mu war a am fii ci arène nationale waaye mbokk yi ki ñu taxawal mooy caatu Modou Lo war a daje ki nga xamante ni mooy Gamou Gueye numéro 2 ne bu neex bu gars yi di xaar moom caatu Modou Lo yaar na la sa adversaire ñu ñu ngi leen waaw maa ngi sant monsieur Moro ah Adja Cécile borom la dres maa ngi koy gërëm di ko sant jotoon na xaar bëri ci combat bi billahi comprendre nag li ma koy wax bëri la di set yàggatu samedi incha allah moom xool bu bëree ma jàpp ko daal ko bu xeexee ma dóor ko daal ko def saa ah billahi wala wala combat dafa yàgg moo tax ma war na ñëw comprendre la ragal rek moo ko téye. mais dina ñëw la 17. non la 17 déggoo li ma la wax la 17 bu ñëwee dina xam ne lépp dëgg sax bu gaawee ma orange moo ne ko mu yéex moo wér. yaa ngi dégg mooy wax taxumaa jóg dama koy daan dem dem si daaw bi. gàmmu ngay am na problème gàmmu ngay parce que alxuraan ngay tax du jàpp na la nag man booy tawal laa dama doon booy tawal moom Bambey lay wàcc kon Alfouta Ngama lay wàcc. maa ngi woo waa Lambaay yëpp waa Lambaay maa leen di woo bu baax a may doon jaay doon ko jaar maa leen di woo ah di woo Lady di woo jaamu gën a xam di woo Teex ah, di woo Alassane waaw combat maa leen ci woo ñoom ñëpp Norfar xam nga ñoom laay gars yi sama gars yi mafia bi waa Brest doore waaw Norfar maa leen woo ñoom ñëpp man maay mbëru VIP yi waaw man maay mbëru kàppoo yi mais dafa mel na nga xeeb sa adversaire non man xeebuma ko de mais ragal weesuwul lii yaa ngi ñu ngi joxante rendez-vous mbër yëpp ñëw taxaw yow nga ñëw ñëwoo hmm? affaire loo koy wax jàkkaarloo ak moom li ma lay wax samedi barke alxuraanu karim boo boo gaawee ma orange. bàyyi la nga yéex ma wóore la. yow marché bi man ak yow dañuy def marché ba moom fekk maa ngi yow nañ marché samedi ba. léegi marché ba kii dama koy daan dem benn saal bi maa jóg. mais nag amu temps sax barke alxuraan man amu jot. léegi tëdd ma sax dina la dugg xalaat wala dara billaahi bu xëyee ma duma ko. bu bëree ma jàppale. ñun nee jàppale de. jàppale waaye doo bàyyi man sama neexee du ma génn sama kër man lay la mooy sama yaay. Adja bu ko am wax. lakk def lakk borom bu day waar bi nekk liberté. ah maa ngi woo Papa Cheikh Moussa Moura maa ngi koy woo bu baax a baax a baax maa ngi koy woo bu baax waa Nord Foire maa ngi woo ñëpp. maa ngi woo ñëpp moo duloo sama turandoo maa ngi koy woo xam nga moom moo xamante ne bu baax a baax waaw comprendre nga instant yi wax ji moom jaratu ko fi quoi sax du jot na ba pare maa ngi woo bool bool yëpp waa salle de vente foofu nag sama grand frère yi nekk foofu ah waa buntu Pikine ah maa ngi woo ñëpp. la nga wax supporter lan la ñuy xaar ci mobilisation Yankhoba Yankhoba Ndiaye borom Espagne borom Madrid maa ngi lay woo ci combat bi combat bi sa combat la du dëgg waaw. lan lañ mën a xaar ci wàllu mobilisation. Nord Fall ñëpp ay ñëw barke alxuraan karim man déggoo li ma la man mbëru VIP la lamb ji maa ci gën a nekk VIP barke alxuraan karim maa ngi woo boo yëpp sama booy yi bool bool yi ñoom Abida Faye ñu ngi tuddoon loolu ñoom Fall Ndaga ñoom Abdoulaye Ndaw ah ñoom xam nga ñoom lamb ñoom Vieux Sarr ah ñoom gars yi xam nga maa ngi woo gars yëpp waaw maa ngi woo xam nga sama Aida Fall yëpp ñoom Fall Ndanga gars ñoom ñëpp maa leen di woo. rendez-vous le 17. rendez-vous le 17 Fourouz koy woo ci combat sama grand frère la maa koy woo na ma jàppale bu baax a baax. Fourouz adversaire waaw am na solo. man mbégte bu baax contentement jàkkaarloo ak yéen chaîne bu mag bi nga xamante ni moom mooy ko ñaanal chaîne bi yàlla jëm ca kaw ca kanam incha allah kii ñu taxawal nag mbokk yi yaakaar naan kenn dootu leen ko présenté mooy kan Gamou Gueye numéro 2 l' de adversaire am bi lu mu tuddati ah Petit Modou Lo gis nga fii nga taxaw la taxawoon lu mu fi waxut amul ah. nee na boo yéexee mu orange mo ne la ko boo gaawee mu yëpp man naar nag naar yaa ngi yaa ngi noonu booy bee ngoog sant sama gaay yëpp di sant sama doom bi di sant moom ak ñu xasaay yi ba ci kii di sant Adama Adama di sant ba nga sant di sant Fudaay yëpp waa Thiel Thiel di sant waa Régal yëpp di sant sama waaw adversaire bi mu ko waxoon la jàppee du ma la ngeen bëree mu daan adversaire bii soob rek waaw loolu waxi benn rek na ci waaw na nga ko gisee. sàmm bi soreetul. na nga gisee sa adversaire. ah taxaw na rek xam naa ko nii rek comme gisante comme gisante mais naar bëri dóor ak bëri simple ah, bokkul est-ce que mu ngi sóoraale loolu. maa ngi sóoraale loolu. eh? dem jàng xeex ak suul bi sax daf duma bëre ko damay xeex ak eh barki yàlla ñëma nga xeex ak boy suul bi damay xeex ak moom ñëma nga xeex ak moom damay xeex ak moom ci doon moom dañ bo xeexé bu duma la bo bëre mu daal ko fas yéné doon mu daal kay eh hein jégal ni wax ko mu leer dama ko fas yéné doon mu daal té yalla ya. caméra baay jakarlo ak mom wax ko dama ko fas yéné doon nga waaw ñoo ngi wax dëgg te duñu nopp lu nag chaque jour da ngay bëri barki alxuraan mais nag mooy jël bi dala koy wéef mbaa mu xaram moom la loolu wax koy duma daal foo teg loolu gàmm hmm. Hmm. tey boo amoon loo koy wax loo koy yóbbu. bi ndax di nga mobiliser keroog la di set ndax làmb ji yàqu na. réew moo tuubaat kenn du des. mais nga nga am combat ñu mu war a am rek le allah lan ngay wax supporté ak lan a sama côté mu ma koy déglu mu koy.

woo reefan yëpp daal ku ma la guddawaa ju Castor sode captage ga rendez-vous le 17 le 17 waaw